ma dellu wax fi tut ci meloom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 mësoo fee wax lu naan acam mësoo ko fee jëfite du am ñun fu ñuy doxee dañuy siggee ka sant Serigne Fallou te yaa ko waral sutub Serigne Touba nga doomi Serigne Fallou lii doy na ndam sa tànk ci kaw farataak dundal sunna sunan lii képp la ñor jërëjëfe yaa Cheikhuna Abdoul Karim mbaru mbëri yi yaa Cheikhuna Abdoul Karim ub nga lambi soo daan bii daan mbàkke yaay ndaanaan mu jëntalu bunt way texe yi mbàkke yaay kéemaan defar nga mag defar ndaw def ci ñoom lu dul dañ defar nga sax ñu ne woon ñii dootu ñu mës a baax ci ku yàlla defar yow di dootoo dëng Cheikh Abdoul Karim Mbàkke di tànneef naxoo ñu mukk Mbàkke te it jayoo ñu ngir dangaa jaar ci yoonu baax ba noppi dañu ci xirtal makaarimul axlaaqi Mbàkke doy nag mbaax yàgg nañ koo ak wax te xamuñu lu mu doon yaay ki ko doxee te jëfe ko it ba ñu xam li mu doon bu doon ni mbubb la mbaa dàll bu ñuy sol ci jamono jii ñu ne kon mën a këru diine gu la neex duggal ndax du ñu fa wax mukk mbaa ñu jëfalu génn makaarimul axlaax yi wiiri wiiri jaari ndaari kaa la ñu jubali ndaari ànd ak Cheikh Abdoul Karim Mbàkke miy liggéeyal yàlla fees nga Mbàkke suñuy xol te fees it ñun suñuy bët ba mën sunoo bëgg mbaa ñu gis leen lu yow Cheikh Abdoul sa bopp ñoddi woo maqam ak wilaaya faratas yàlla ak sunna lii képp nga ñuy digal am leen yarte amit teggin fonk seeni way jur mag weg leen te seeni rakkit yërëm leen ci lii képp nga sax lu ñu digal bu dégg bëccëg wayjur yi bëgg nañ yow yaa dem ëkk mbàkk ngelaw mënu laa yëngal bëgg lu ñu neex du la taw xam mukk loo gëmul Cheikh Abdul Karim Mbakke yaa mat wasila yar nga ndaw ñi teg leen ci siraatal mustaqim yow de ku la déggal du réer te aw xee tamit du ca yées yaatu nga woyof tabe ànd ak laa biir dëkk ci jariñ te amuñu la benn njariñ Cheikh Abdul Karim Mbakke yaay borom njariñ la gën fa yàlla jox nañ ko yeneen mu jox ko Bàmba lu waaye am am ba di ko jaay bu yegsee fi yow fàtte la muy jaay ngir bëgg am ci li ngay jaay Cheikh Abdul Karim Mbakke Falilu yow dul lu baax ñoru la lu dul lu baax safu la lu dul lu baax yitteelu la Cheikh Abdul Karim Mbakke yaay borom baax làmbatu woo dangaa daj boole xam ba far di baax yaa ñu nàmpatal ci lislaam imaan ak ci ixsaan ragal yàlla bu ànd ak kóolu bay Karim Mbakke amoo ci maas jàmm yàlla ci biir jaam ji góor gabu la ci yaa doy waar rahmatan lil naas ak defar jaaxal na cheikhi tarbiya te mosuloo génn réew mi yaa jëmmal cheikh yi warum réew saa boo xëyee yaa ngi ci lu ñuy jëriñ mbàkke suba ngoon tàyyi woo sonnloo cheikh karim mbàkke dàqewuloo ñoo ngi lay tooñ suba ngoon nga dañu jéggaleeru nu am mënal nga ñu lu lott ndey ki bàyyi moo waral ñu def la ngay sunu waay te fépp foo mës a romb ngërëmal yàlla sàkku nga ba am fa lool aliye yaa ñu fa may lool góor dootul am ci bii daan am kilifa yaa ñu ko jàngal fonk ko yëpp amoo ci maas tarbiyu nga mbàkke ba am ngërëmal mboolem gaañe woon am nga ngërëmal cheikh Modou Moustapha am nga ngërëmal cheikh Mouhamadul Fadilu cheikh Abdoulaye Mbàkke gërëm na la cheikh Abdoul Xaadir gërëm na nga la Serigne Saliou Mbacke gërëm na la ak Cheikh Mouhamadul Mourtada ma dellu joyal sama xalima jëm si fi yow ngir dabwaan mboolem jikko yi woon ci Serigne Moustapha Faliloo gaaña mel ni Serigne Modou bu sa jën baatin la boole woon na silwiste mësta gàntalu rakk yi jooy moom Serigne Modou gërëm na la Alaaji Baara xëy la gërëm dug nettali damaa fekkee keroog ci àll ba sëriñ baa lay ñëw digg naaj wu tàng nga defi tànku neen boole ceeg daw ngir teb su sëriñ ba yaa doy waar rëppeelu ci keroom sëriñ baara di safug nonga laxasaay bu xeew bu gis boromam mam baara keroog ku fa teewoon ku ne nga ëttu mbàkke bu soobee ki paaleen sa jëf jaafay riir cheikh abo falilu gërëm na la ngir mbétteem gu réy ga fàddu na juróom-ñeenti fan chahaban juróom nañuy ngëneeli chahaban wata buy jar ba mu jébbal cheikh yi fadilu a Touba bëgg a fata jëfal nga fa Cheikh Abdoul Fata lu waral ngërëm lay riir ba dañ njabooti faddilu ku ñaan ñàkk boo jëndee am Cheikh Karim Mbàkke am nga ndam noppal nga say kilifa kenn déggu la te yaa yor li mat di wax déggeesu la jël nga sa lépp jébbal sëriñ Abo miy déglu Cheikh Sidi Muxtaar mbooleem ngërëmal sëdd yi dajees na fi yow ngir yaa wane anoon nees waaye di jariñoo Baye Fall yoonu Mouride Cheikh Abdoul Karim Mbacké roy teef nga kër Cheikh Rafal nangu ndigal ak sell gaa jëf lii waral ngay soppeeb gaa yi Cheikh Rafal yesaat nga taarixu yoon wi te yaa jàngalewaat ak taalube wallaahi jag nga jagleel nga jagal yoonu Cheikh Rami taxaraw koo fi gis ma ngay bëngee ko xënta woo bégal sëriñam sët bi njëkk ci tuubaa njëkk a doon sëriñ Touba Alaaji Baara yaa ñëwoon ci moom ba ñu xam ni Ahmadou Bamba jógu fii ngir gaynde du jur muus te garabu kaani doom jaa ko gën a wex surtout gaynde gaynde lay doon taxaa mooy sëriñ Touba yaa wéetal yow defoo àdduna koom dul jaamu yàlla sa borom yàkkamti woo leen ni moom réeroo réer la woo Cheikh Karim Mbàkke da koy wërim réew te kuy si gor bala fi ngir sëriñ fallu rek nga doyloo néew naa gis sa morom mbaa de kon ku lay nduru maas ngir sa jag la jiitu na woon démb da ngaa del siwaat di moom umpale laa waral ñu di la moy ñun ñi dëkkee tuuba ko moy waaye ku mën a dem ba mulkeeg malakoog fa payum réew diwaane di nga xam ni Cheikh Abdul Karim Mbàkke fali looy mbër mi ñu wóolu al amin nga yaay danay xayrul anbiya waa saafara sa ndënd a bi mbër a ngi far di la bàkk ndeyaay seen yilimaan mu jaddit nga yow weesu nga ak sëriñ amuloo soxla ci dul yàlla suñu borom mbooleem ngëneel yi nga làmboo taxulaa xàmmee kereku sedd muy taw mbaa muy nàcc tey suñu borom yaa nuy maraleeg suñu borom daya taxañ mbooleem yónnee jëm fa moom waaye yëgal ni mbooleem ndénkaan yaa ngi lay war ngir bëgg laa dénk lañu leen dénkoon ab watakat bu mën a to yeggee day yëkkale ko mën a weesu fa mu jëm xënu guddi ñëw mbaa def ni jéeri waalan borom géeju ngëneel yaa ngi baxrul biir lay làqatoo deesul ku nuy xam baatin ba wóor na bul ko sikk kii lu mu wax buur yàlla ni waaw kenn mës ta gis muy xëcc nguur mbaa xëccu daraja mës ta am ay magam da leen a fonk lool luñ ko wax mu daw daal di def mbër daal yow ku la jaajiruur Cheikh Karim Mbàkke yaa ñu jaajiruur jommi nañu jome te dootul ñaar ngir sa jikko yi Mbàkke moo ñu yéem wër nañu ba daj te gisuñu fenn sa kee Mbàkke amul ci xarnu bi bu la neexee di bàkku ndam nga ndam jarul di làqu xëjatoo fenn jantum njolloor nga gu ni dàng kenn dina sa soxna jaara bu sa maam mariama ñu may ahmadul xadim moom la ñu duppee soxna awa bu sa mi ñu may cheikh mouhamadul fadilu mu doon ko duppee soxna awa fay mi ñu may cheikh abdul karim yow njëkkante woo mbaax dangaa donn ngëneel adduna këfu la diina jamu la te sa naaw la la doo ko ñuy sañal ak mënal xaaroo kenn ci li la war cheikh abdul karim mbàkke yaa mat sëkk la nga doon la gën fa mu gën a gënee fa la la tànnee nga raw amul ku ñuul a yow liy jëriña te amul lor mooy borom jikko yu rafet yi docteuru xol yi faral suñuy ràgg xol mbàkke te defar ñun suñuy jikko yow kuy déglu say ndigal sax ci te bali ngay tere bu yàkkamtiwul kenn du ko tee am lu baax xam-xam lu mu bari bari ay teggin mooy li koy aar am leen yore ki teggin su ngeen bëggee am lu baax waxtasimoo bi habdillahi jamihan wala tafaraxu faw ñu am ay jikko yu rafet bu ñu bañee xàjjalikoo kenn ak lislaam bi yaay matali ndeyaa matal yoonu lislaam bi yow rek a dajal tafsiral man quraanul karim ci ay melo ki jikko ba ñu dooni fóorite mos ñoo dal ba yaa gënal yàlla fi jàmm ñi nga say waxtu mos na ci ngërëm doo xaajale ko par parloo mbaa jënd ko wut farandoo ñëpp nga boole yamale ku nekk jox ko mbàkke li mu moom doo jàpp nit ngir xeet xàmmee woo pëlëg géer jikko yeneen nga làmboo Cheikh Abdoul Karim yàlla na fi yàgg